ñu ci ndigalul Cheikh Abdoulahi Mbacke xalifatu Cheikh Mouhamadou Lamine Mbacke ñu def délégation bu am solo ñëw ci moom donko ko indil ak euh, àndandoo ak jàppale ci sëriñ bi mu ci moom ngir li nga xamee ni mooy euh, màggalu Porokhane sëriñ bi. Euh, doon wane kollëre bi nga xamee ni moom la Cheikh Mouhamadul Bachir amee woon ak Cheikh Mouhamadul Lamine Mbacke mu ne di ko feddali waaye di feddali itam seen diggante bi nga xamee ni suñ borom dogal na ñu àndoon ko te bokkoon ko sëriñ bi ñëw fas yéene ko jàppale ànd ak moom ci bis boobu ci taxawaay bi. ci liggéey bu am solo bi nga xamee ne naal na ko mu fas yéene ànd ak moom jàppale ko ba fi nga xamee ni dëgg na liggéey sëñ Tuubaa bi yegg fa mu yegg fa allah loolu daal moo nekkoon tànk yi mu di ko jàppale ci taxawaay yu am solo yooyu kon nag li lañ mbégte la ci ñun di wax mboole mbokki taalibe bi ñëpp ci ak juboo ak àndandoo boo xam ne ni lu sax la te yàgg diggante kër Cheikh Mouhamadul Amin ak kër Cheikh Mouhamadul Bachir loolu bokkoon na ci li tax itam ñuy ñëw di ko seetaan mbokkitaal bi yëpp di leen ñëw di leen ñaanal bu baax a baax ci barki démb bi Magalu Mbàkke Kajoor gi ñu génn ni ak taxawaay yu am solo yi nga xam taxaw nañ ci kon ñu sant loolu mbokkitaal bi yëpp di leen jaajëfal di leen ñaanal barki soxna Jaara ak suñu borom dina leen jàppale dimbali leen بسم الإله ينور